ah macha allah yow sax xamal nga ma li waajooju wax waaye ndeysaan nooy gën a jege sëñ bi gis nga loolu maa koy dëggal sëñ bi boo koy gis nga ñun amuñ benn xool bu ñaaw wala xool bu metti ci ci àddina amuñ loolu ñun mbég mi rek mbég mi rek ànd ak borom ree ju neex ji rek ba àjjana waaw ñun duñ fi nekk di a tëb di dalaka xataraayu nay kay moom da ngeen cee ferenkulaayu loolu kay mën naa cee di preuve kay moom loolu kay moom preuve yu palpable sax mu ne malaaka yi la gën a yàpp xanaa xamoo ne nit mën naa jaamu yàlla ba gën malaaka xamoo loolu xamoo loolu ah ñun de sun maam liggéey na ba maam seen maam yi nelaw xanaa sun maam bi mu fi sonn di liggéey ba nit ñi di ci teg bët ba ba tax seeni sët di toog muy dox xanaa boobu seen maam yi dañoo juddu wutoon ñun sun dafa liggéey ba mu ba mat sëkk dafa liggéey ba yàlla fay ko fii ku liggéey yàlla fay la yàlla la laa mu misxaala zarratin kem ba zarra misxaala zarra lu ko toll fépp zarra yàlla du ko tooñ kenn kon nag moom képp koo xam ne def nga lu baax rek mu mu kulal la ko waaw man jaa bil hasanati fa law ashru am amsaaliha loolu la yéen jëfu leen lu ñu leen di fayee ndax kenn xamu leen siiwu leen toju leen bu bari toju leen sax fenn bay ba muy bari looloo xooral coono gi yëpp ñàkkum xëyee leen jàpp yéen rek moo tax dara dara mënu leen koo yor ñun nag mën nañoo toog muy dox loolu teraanga la de loolu tedd nga weesuwul loolu xanaa xamoo sëñ bi nit a ngi kër kër ba sonn amul dara yow nga toog muy dox liggéeyu ndey liggéeyu ndey la waaw ku baax yow de moom wutee nga ak ñenn ñi moom wute nga ak sa yeneen yi nga xam ne boo leen corrigé ñu lay saaga waaw li dee jafe ci seen seen mbokk yi waaye noonu la euh, dama la doon wan rek du pour corriger la sax pour xeeb la déedéet mais dama lay wan ne la xam-xam lañ mënta jeexal loo ci wax desal bàyyi sama wax lu ko ëpp kenn nag amu ko man mii di wax ak yow bés dina jot ma daanu njaaxum goo xam ne ndax téere yàlla bii. ku ko ku ko xam amul xam ko ba peeg ko mënta am da nga am lu la ci yàlla xéwalee nga xam ko am ci yoo xam ne da am ay faute des fois da ngay juum loolu ñëpp lay daal. Ibou Diop salaamaaleykum wa rahmatullah non toog muy dox am na faatu muy dox am na nelaw muy dox am na tëriyaande muy dox am na ak fen muy dox waaw yooyu yëpp nag si suuf yanke nga koy fekk quoi. Mm-hmm. waa ñooñu bu ñu waxee ne sëñ bi yàlla la fañ ko teg du fenn fu mooy mënoo gis lenn lu mooy yàlla ci moom yiw na sell na jëf na lu baax def na lu baax liggéeyal na yàlla ba yàlla gërëm ko yonentam gërëm ko foofu nag ngërëmaandeel googu ngeen xamul ko fa ko yàlla dëxëñ ndax mënu leen koo xam ndax tuuti ngeen yéen sëñ bi doyu leen ko ab taalibe il faut ngeen dem ci taalibe mi taalibe mi tarbiya leen yar leen jàngal leen xamal leen diine ngeen mën a ngeen mën a doog a wax mais sëñ bi mënoo leen am garaatu dem doon taalibeem loolu dañ ciy tuuti il faut ngeen topp rang gi waaye noonu la fen muy dox amee fen muy dox kay moom moo ci gën a rëy te moom moom ngeen di doxee yéen parce que fen muy dox weesu dem Arabie Saoudite ne leen projet juma laa am ñu jox la un milliard nga ñëw tabax ci benn benn jàkka ju ndaw tabax ci ay kër jënd ci oto taxaw di ngal ngali di wax di dem te yéen amu leen lenn amu leen kenn koo xam ne menn nit koo xam ne askanewu ne ci yéen ku liggéeyal diine dara fii ba fi yàlla eh, xeexal yàlla bi mu fiy jar xeex ngir yàlla bi mu fiy jar bakkan kenn rek a wuyu woon muy si Ahmadou Bamba xaadimu rasul kooku rek a wuyu woon ku nekk nitu dëgg nag te dëgg ñor la nga xam ne liggéey na ku nekkul nitu dëgg nag dëgg taxulaa jóg nag nga xam ñu fiy woote di ay saaga ak di ko xas ak di kii ngeen yaakaar ne loolu dina may métti ci dara dara dara wallaay akam moo may neex parce que man sama ne wu ci waxuñ ma ko waxuñ ko sama baay. ok daanati nga sa bopp yow kay waratoo wax yow ba yeboo noppi yow kon looy waxee naan financement yi Masaalikul naan kon loo koy waxee te ñun sax booboo tane parce que léegi ñoom ñu waa Masaalikul Jinaan murid yi ko financé dañ dul ay jullit ñooñu duñ jullit Arabie Saoudite fa nekk daa am Tuuba amu fa amu Tuuba Touba doo fa dégg sabar école française sa amu fa ngeen waroon a ndamoo loolu ci islaam am juma ju ne sëng sut jumaa yëpp raw leen imaam boo fa nekk ëpp xam-xam imaam yi taxaw fii di ngal ngale ci seen jumaa yu ndaw yi nga taxaw fii di am looy wax léegi kay bu dee ñëw ay jullit ñoo ko financé kay ba nga ne alhamdulilah te fii ay jullit financé ko lu la tere wax alhamdulilah. seex bi ñu lay ziar baax a baax da mel ni da nga ni fen muy dox daan ni loolu weesuwul dem arabu saudi ni projet jàkka laa am ñu jox la un milliard nga ñëw tabax ci jàkka ju ndaw li ci des nga jënd ci ay oto di ngal ngali di dem kan ci mbindeef yi koo xam ni man nga ma duut baaraam ci moom ni ma diw sàngam mii kat dem na arabu saudi ñu jox ko un milliard mu ñëw tabax ci jàkka ju ndaw li ci des mu jënd ci oto kan ci mbindeef yi maanaam sawax wax ji lan moo koy firndeel lan moo koy firndeel sawax wax ji wallaay sëriñ bi gis nga li mu wax wallahi lazim am naa ci preuve dafa fekk na nag du may uññi awraay jàmbur comme ni ngeen koy defee te wallahi waaye xam naa ñu bari ñoo xam ne ñu ngi koy def ta xam naa leen te maa ngi ak seeni numéro téléphone bu ma demee ba wax ko yitteel ma mën naa cee dugalaale seeni i numéro ne bu ngeen ko wooyee neena ko diw moo dugal numéro bi moo wax ci yow nangam bu gëmee yàlla ndax dana ko wéddeem déet. waaw sëñ bi loolu waxi sufiyanke la rek ab sufiyanke moom lépp lum xamal nit kuy dund la ci lum jàpp ni lu ñaaw la loola or lay doon ci moom su koy wax du laal suuf ma ne yi ngay wax. waxi naxa sa fëndang dong la du wax ju jëm fenn bu fekkente ni li ngay wax am nga ci ay preuve hmm? maa ngi lay xaar kenn rek koo xam ne da koy duut baaraam joxoñ ko ni kii dafa dem ba arabu saudi ñu jox ko un milliard bu ñëw tabax ci jàkka ju ndaw li ci des mu jënd ci ay oto waaw boo ko xamee rek indi ko Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga ci dan leen rek ñu di leen saya. layalla, ragal la yàlla ragal la yàlla ragal la yàlla sawaay waxoon benn dëkk li ngay wax da doon dëgg moo tax ñeme woo ko ne nga ñoo tax sañoo cee sori li ngay wax su nekkoon dëgg da ngeen di so dem ci sori yéen leen mun ci gaay rek soo leen amul ci preuve da ngeen koy génne mais mënoo leen ci ñoom dara dara ngeen ci yow nga naan da nga cee am lu leer nan bàyyi leen meew yi meew yu bari yi bàyyi leen ko wax lu dëgg nag ci yéen kese la doy. yow sëñ bi dama yaakaar ne da nga da nga ngor a faju xanaa dégg li wax bu dee waxi sufiyanke la kay xoolal ba xam ndax sufiyanke bi dina taxaw di xas kenn mënuma yéen ñiy taxaw di xas mbindi sëriñ bi sëriñ yi fi jaar ci ay kilifa yoo xam ne liñ bind amuleen ku ko bind du ma ne seen baay bind ko ngir ormaal ko mais du maam du mbokk du kenn ku leen jege ku bind lu lu ku bind sax waxuma lu ni koy kuy lu koy jege ku bind rek laa wax amul nga taxaw di leen ayibal di leen saaga gis nga lii laa doon wax ci sufi sufiyanke yi ngay wax ne dañuy luñ xamal nit wax ko fekk du ñoom seen bopp la xam nga wax naa la ne la yéen koy def man waxaguma fi kenn da ngay fen wala waxoo benn dëgg te gis nga kii mu ngi naan ma waxoo benn dëgg te sequñ ko nag xam-xam la ñuy wax dañuy waxtaan ci loolu la ñu waroon a yem man du ma saaga kenn du ma offensé kenn ko def kenn kenn mënta wax ne mos naa ko ko def mais boo amoon yar doo taxaw di wax yu wax yu mel ni te yow xamoo maa la mag xamoo yaa ma xamoo maa la gën xamoo yaa ma gën ndax ki gën ci yàlla rek ñu koy xamee nga mën a taxaw fii di ngal-ngali di wax foofu noonu wax joo xam ne tegoo ko fenn foo koy teg xanaa xamoo ne ni nga waxee noonu mën naa la wax lu mel noonu saaga la ba juróom-ñaareeli maam mais du ma ko def yooyu du ma ko def mais yar baax na daal. salaama aleykum wa rahmatulah barakaatu Cheikh bi man dama am benn question rek duma la bëgg a laaj sama yaram neexul nag danga ne sëriñ bi dafa jaamu yàlla ba yàlla gërëm ko yow loolu fan nga ko jële loolu rek laa bëgg nga tontu ndax yàlla moo la wax ne gërëm na ko loolu bëgg naa nga leera ci des fois damay defee damay dégg tamit ngeen ne dafa liggéeyal yenent bi ba yenent bi fay ko loolu tamit bëgg naa nga ñëw ci ndax xam naa moom mu ma xamee xilla ne yàlla mosul wax yenent bi mooy fay ndax yenent bi amul dara lu muy fay donc yenent bi mënu koo fay loolu moom xam naa ko yow léegi fan nga jëlee ni dafa liggéeyal yàlla ba yàlla fay ko loolu bëgg naa vraiment nga wax ma ci nga leeralal ma foofu ndax yàlla moo la woo wax la ne mu waa ji daf ma liggéeyal ba ba kontaan ma fay ko wala yow lan loolu fan nga ko jëlee bëgg naa nga wax ma nag maa ngi xaar nga tontu ma fan nga jëlee ni moom dafa liggéeyal yàlla ba yàlla fay ne tarixa bi amul fen dèjà li fen la munoo ne yàlla diw liggéeyal na yàlla ba yàlla fay ko te gisoo ko ci alxuraan gisoo ko ci hadis yeneen naa yow nga leeralal fii leeralal ma maa ngi lay xaar. asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatuhu euh, groupe Rebeuss leen di ziare Seydina nuyu la ak waa ji Moustapha euh, waa ji de waxam yi mooy loolu ak soxna sii di wax euh, yaa ngi jàmbat yaram yàlla nala la yàlla wéral ak jàmm yaa rabbi oustaz maam Ngor nuyu la lu bëree bëri ñu ngi lay jaajëfal tamit kii de soxna si jaru ngay sonn loolu muy wax de mënu koo indil benn lay yàlla fay ko kuñ fay kay yow dañ koy fekkee dañ koy téye fay kay ñun liñ xam liñ ci xam moom dañ koy téye hmm? fee ne yow malax yaam buñ fa demee kuñ fay da ngay dugg àjjana waaw te sëñ bi ñun ñëpp xam nañ dundam lu ko gën a di ci am àddina amut amut ku dund ci loxoy tubaab ba faatu ci ay ati at hmm? mosoo am benn noflaay presque kooku moom du kooku la ñu fay xanaa kay kon ñii lañ fay ñi toog fii léegi di bu fekkee fay am na ñii dañuy wax rek ñi boo nan ngay xamee ne fañ leen lu dut alal bi feeñ ci ñoom nii loolu la wax bu fekkee fay nañ leen fii si àdduna pare ngeen de waaw waaw moom loolu la ñuy wax waaw képp koo xamante ne àddina nga bugg fii ah yàlla dina ko indil mais nga xam ne nag àllaaxira dangaa perte de doo am tus alxuraan moo la ko wax du man waaw fekkee nag àllaaxira moom ngay ut nga dox doxinam ah su boobaa yàlla dina defaral àllaaxira bam nice waaw bu la mayut àddina tamit mu may la fale mais bu fekkee yéen jàpp ngeen lii ngeen am fii lii la leen yàlla fay perte ngeen ku yàlla fay fii nii xamal ne perte nga parce que lii nga doon ut waaw loolu la alxuraan wax yal na leen yàlla gindi. waaw soxna si maa ngi lay ziar bu wér. Euh, di kontaan bu baax ci tontu ci sa message bi nga xam ne tontu ko jefewul yomb na lool dëgg yàlla liggéeyal yàlla ba yàlla gërëm la yàlla de moo wax ne képp ku ko liggéeyal mu fay la nga am ngërmaandeel yàlla waaye nag wa ridwanullahil akbar ngërmaande yàlla mu ëpp doole lépp te liggéeyal yàlla rek ki nga ko mën a amee ci jaamu ko bu fekkente ne daa ko waroon sëñ bi jaamu ne yàlla rek yow kon mën ngaa weddi loolu yow kon kenn mënta wax ne yow jaamu nga yàlla kon yow boo nangoo ñu mën a wax ne jaamu nga yàlla te te tojoo fenn te nga nangu yow ci sa bopp ne yaa ngi jaamu yàlla war koo mën a nangul sa boppam jullit muy benn ñaareel ba yonent bi gërëm ko yonent bi de mën ngaa liggéey ba mu gërëm la ndax yow mi nga xam ne bindoo kenn bindoo jëndoo juróo jur rek ngay def sa doom jooju mën na laa liggéeyal ba nga gërëm ko comme que yow mii nit nag te bindoo yaa mën a am ngërmande waxuma la ak bi nga xam ne moo la fa yàlla muy ñaar ñetteel ba yonent bi fayut yonent bi de man duma wax ne fayut yàlla nag moo yore nguuram gi yàlla bi muy wàccee koor ba mu ne kutiba alaykum siyam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum taxun bi ñuy wax ne koor mu ne koor kooku barem bi du jaar ci kenn man maa koy fayal sama bopp man yàlla asuumu lii waana ajzi bi <laughs> yàlla ko wax de nee boobu moom man maa koy fayal sama bopp kon loo ciy déggee yeneen ni kon moom fayu ko woon daanu ko fay kon kan moo ko daan fay ci ñan la daan jaar bu dee ci malaaka yi malaaka yi de xanaa doone ñoo gën a foor yonent bi alayhi salaatu wasalaam yéen comme que pour yéen yonent bi moom du dara ci seen bët tegu leen ko fenn pour yéen moom amul benn garaat ab jaamu yàlla woon bu ndaw bu fi ñëwoon dem na jeex na foofu ngeen koy teg bu dee foofu ngeen ko teg de doo mën a dégg li bi loolu mooy ñàkk xam-xam xanaa xamoo yaa ngi tooñ sa mbokkum jullit yàlla fay la léegi gis nga yàlla yàlla ji xaaru yomal xiyaam de yàlla bu lay fay da lay fay nga ñëpp di teg seen bët gis nga liggéeykat. ci adina bi comme que yow nit nga sa mbokum nit nga mën ligel. liggéeyal mu fay la fii te demagu len fenn tiyaaba jëng ci am nyogut, comme nit a lool waxuma la ak yalla kon yow da nga japp ne julli ngay julli benn nangoogu ci benn nangoogut dañuy dem ba fa lañu ñu nang yow ya gatt xam-xam way serigne bi. mom fekkewul yenente bi yenente bi joxo liggéey wax ko liggéeyal ma sa sa diggante rek la lay wax yalla ak serigne bi tassewuñ ci jamono nan la koy waxee mu liggéeyal ko su buggoon liggéeyal yàlla dafay yem ci alquran ak sunna bañ a fent ab yoonam te yeneen bi dafa tere kuy fent ay yoon donc foofu tëddee na boor kan moo la wax yàlla nee ne gërëm na ko loolu laa la wax ndax yow da nga fekkee yàlla daf la woo nee la gërëm naa ko wala gërëm ko man tontu woo ma de yow bu dee yàlla nangul na ko jaamu yàllam xamoo ci dara xaw ma ci dara xam nañ rek doon nañ ko gis muy julli di woor comme ñu koy bu dee buñ ko doon suul luñ ko doon seedal gis nañ ko yàlla muy jullit yu woor yow nag su dee jullit la yow yaa xam su dee su dee lu nekk ci xolam yow yaa ko xam yow yàlla buñ ko doon suul loolu lañ wax léegi yow gis nga ko muy jaamu yàlla yow lan moo la leer ndax yàlla nangul na ko wala yàlla dafa la woo ne la sama jaam bi nangul naa ko xanaa te yàlla bu koy nangul sax bu koy defal xanaa nangul ko lay def mais fay bi àllaaxira la nekk nekk fay baa ngi àllaaxira tontu ma foofu. bu dee yàlla moo la woon ne la nangul naa jaam bi ba pare nee ko fay naa ko xanaa yàlla buy fay jaam kay bu kuy liggéeyal yàlla day wax ne day xiir nit ñi ci julli ak woor mais yàlla sant nit ñi julli ak woor yow nga teggi ko nga teggi leen ko fale li leen yàlla santoon nga teggi ko jox leen leneen tontu woo ma de tontu ma ndax yàlla la woo wax na li gërëm na ko yàlla moo wax ne moom li mu jaamu yàlla yàlla nangu na ko ndax yàlla moo la ne fay na ko de ndax yàlla buy fay jam, aduna la koy fay wala àllaaxira ba ci ci la fay wala. salaamaaleykum wa rahmatullah waa sama sëriñ maa lay siyaar di nuyu mbokk daara ji waa jaam yàlla gi nga wax nii léegi man ci lii laay ñëw waaw pour nga nagul nit di jaam na yàlla rek nga ne am na ngërëm ak yàlla loolu moom ngërëm ak yàlla moom yàlla moo ko xam mais du ñun ñii di dund ndax nit mën nay jaam yàlla mu gistal te yàlla nee na képp koo xam ni day gistal bëggut mën nay jaam yàlla jaam yàlla bañ déggital dugg ci wala a ah, wala na mi jaamoo yàlla sax nekkul yàlla digle loolu lan moo la ci wóor bu dee koo fekkente lu jamono nekkoo ci xolam xamoo ndax da doon gistal wala ngistalul mais loolu moom nan nga mën a attee ni kii moom am na ngërëmal yàlla ngërëmal yàlla kay loolu yow may xeeb lañ koy am wala xanaa jànguloo nga dégg ñett njëkk a dugg ci safara nee nañ mooy koo xam ni maanaam kii dafa doon xeex ci yoonu yàlla xam nga jihaat ci yoonu yàlla ko ci dee moom dangaa shahid ak la ca nekk yàlla ne safara ndax kooku da xeex pour nit ñi ne jàmbaar la mais nit ñi xamuñu ko kooku digganteem mag yàlla la moom ngistal ci xol la nekk ci loo xam ne moom la nekk ci biir xolam muy def ngir ne gars yi ne jàmbaar laa xool damaa ay loolu loolu moom moo xam mais du nit ñi ci suñu bët beneen bi ki doon joxe sa joxe moom nan nga mën a xamee ni kii day ngistal ci joxe gi wala wala wala ngistul ci li muy saraxe loolu yàllaa xam xam nga mais yàlla ne ko safara ndax da nga doon joxe pour nit ñi naan yaa baax xam nga ki doon woote ci yoonu yàlla tamit di woote ci mel ni day woote ci lislaam te lim doon woote yëpp mi ngi doon ut macha allah yaa baax kii moo aay mais loolu lan la ci nit xam nan nga mën a teqantalee ustaas biy wax wala waaraatekat bi wax ku mu ta doon ndax kii day li muy wax yàlla rek tax di ci gis lan nga mën a teqantalee kii saraxe nga gis ko rek mu jël xaalisam fekk ku sonn mu dimbali ko di dimbali nit ñi nga ne kii day ngistal daf ciy ut jël jërëjëf wala dara nan nga ko mën a xamee loolu yàlla moo ko xam li ci xol yàlla moo ko xam ak tamit gàddaay ga jamono yonent bi sallallahu ñi nga xam ne danoo gàddaay xadis ba bu mu ñëwee ñoom gàddaay ba nan demee benn la ñi danoo yëkki fas ñi dox ñi war gëlém dem Madina pour rawale seen diine ñeneen ñi dem pour takki soxna ak dund gu neex gën fay dund te ñoom ñëpp ñoo bokk nañ demee waaye yéene ji ci boppam la nekk ci xol loolu yàlla moo ko xam du nit nan demee benn la nan fa toogee benn la nan fa dundee benn la mais léegi teqantal googee yàlla moo ko xam loolu tax kon kenn du toog ab nit toog koy seedeel naan diw maanaam jaamkatu yàlla la woon bëgg koo dëgëral daal ba ne kii dafa am gërëmal yàlla gërëmal yàlla moom yàlla mooy gërëm nit ki mais du yow. sëñ bi yi ngay wax yëpp ay waxi naxa sa fandang la fii kenn ay welu fi kenn kenn saagawu fi kenn li am solo mooy nit moom buy bind na bind lu wér rek bu wul lu wér rek dañ koy weddi waaw diine jii moom diine yu weddee ko saxal la Mhm. du diine joo xam ne lu waay ñëw rek indi rek nga gëm ko loolu moom mënta ne dafa am ñaar yoo xam ne mënta daje ci xol daal yaa ngi dégg loolu mooy problème bi salaamaaleykum rahmatullah maa ngi lay nuyu di la ziar euh, mbokk waaw franchement wax dëgg yàlla wax yi rafet na de waaye am nga njumte de am nga njumte de Eh, wax dëgg yàlla yi min def ta taxaw wat ne ligéel na yalla bu mu gërëm ma amut de xam nga fi nga mujjé ma tontu la fa ba euh eh, ya nga naan yalla moy fayal bopam koor pourtant yalla de wéru koor bañ na bari safara goreel mindeefa mi dugal len aljana pourtant yalla waxul fofu ci damay tëj safara bàyyi yonent bi mu goreel mindeefi te yonent bi ay taawam xam na ña liggéeyal yàlla ci ñu dul saxaaba yi mais amul droit ne leen carrément dinaa leen dugal àjjana ba leen di génne safara kon donc foofu yàlla moo taxaw ne koor maa koy fal boppam loolu kenn werantewu ko moo taxaw it ne damay tëj safara te dinaa goreel ay jaam dugal leen àjjana xam nga foofu euh, Seydina Muhammad moo gën ñëpp de mais taxawul ne dinaa tëj safara bàyyi Seydina Muhammad mu goreel ku ko neex ci ay jamonoom kon donc gis nga foofu euh, macha allah euh, yàlla ñi mu gërëm ci alxuraan wax na ko gërëm na saxaaba yi gërëm na yonent yi macha allah euh, jaam bi yàlla gërëm nag yàllaa ko xamal boppam te loolu pour nga xam ko keroog yomal xëyam yàlla na yéex te yàlla bàyyi ñu fi ñu gën koo liggéeyal gën koo gëm macha allah jaam bi yàlla gërëm yàlla moo ko xamal boppam. jaam bay rambu yàlla moo ko xamal boppam yow tey yow ci sa bopp yow nitu simple di toroxlu ca kanam suñu borom mun nga liggéey suñu borom ba keroog yomal xeyam mu ne la dama ram mu diw ci kaw nag condition am ak kaka neex nga ram ko mu ngi noonu mais diw liggéey na yàlla gërëm na ko déedéet kooko kenn amul sañ-sañ wax te sëriñ bi ngay wax tamit bindu ko waxu ko bindul na liggéeyal naa yàlla ba yàlla gërëm ma bindu ko de man de dégguma ko kon donc boo taxawee fii bëgg indi ngërëm kooku nga ne yàllaa ko gërëm keroog yomal xiyam sëñ bi dina am yat yu mu jël di ko dóor ci ay nitam ne leen carrément kat li ngeen may waxal bàyyi moo ko fi te santuma leen ko ngeen moytu loolu nag bàyyi ko xel ndax tamit nit dina jaamu yàlla ba benn fan wala benn kàddu yàqu ko benn kàddu yàqu ko ndax ki taxaw ne min fas yéene nekk min daanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon kooku kat du taxaw ne yàlla gërëm na ma taxaw ne yàlla gërëm na wala moom da ko bind xam nga boo demee bay wax tamit ci xam-xam da wax li nga xamante ni moo nekk macha allah di la ziar. Ah, ajaratu kooku jaamu yàlla ndax yàlla nangu na jaamu yàlla am loolu moom mën naa ko waat yàlla nangu na ko kay yow bu la wóorul rek neel wóoru la waaye bul ne wóorul kenn loolu kon na féete boor ba pare beneen bi mooy Ousmane ibnul Xafaan Aboubacar saxaaba yi kenn ku ci nekk jaamu nga yàlla ba yonent bi garanti la dara sallallahu alayhi wa sallam yàlla yonent bi gërëm ko carrément ñi liggéey jaamu yàlla seen leen ñi jaamu yàlla seen poos lay dugg te yonent bi da leen ak gërëm ku ne ci li la war nag am nañ droit ne la jaajëf boo góorgóorloo ba tabax sa kër yaa cee dëkk dëkkuma ca waaye am naa droit ne la jërëjëf jàmbaar nga loolu na da ngeen ko war a xam man nag man dama xamul seen xel mi gàtt mi fu ngeen koy fu ngeen fu ngeen fu ngeen bokk yéen yonent bi tamit nga ne sëriñ Touba dafa ñëw fent aw yoonam Serigne Touba fekk fentul wenn yoon. bu fekkente ne da nga jaamu yàlla def lu rafet jëf lu ñëpp mën a teg loxo kenn mënu ko weddi ba nit ñi ñëw fonk la ca fekk la ca ñëw di la ca topp di xool yoon wa nga ca jaare yonent bi dénkoon ñi ne ñi sama yoon yoonu saxaaba yi kii ñëw fekk nekk ci yoonu yàlla yoonu yonent boobu ak saxaaba mi fa yonent ba tegoon tànkam sallallahu ak saxaaba mu teg ko fa di jaamu yàlla ñin ñi moom mu roy yonent bi ñin ñuy roy kooku nga duñ ko roy te yàlla wax yonent bi ne ko in kuntum tuhibbuna llaha fattabi'uni yuhbibkumullah fii toppante kenn mënu ko bañ Serigne Touba amul fenn foo gis moo wax ne bind na sama yoon wii maa ko rëdd nii la tudd wala nii la tudd muridiya amul kenn ku ko mën a wax na Serigne Touba ko ko tuddee wala tarixa benn la Serigne Touba am Serigne Touba amul tarix boobu tamit boo ko xamutoon nga xam ko. waaw yàlla ma ko wax yàlla ma xamal ne gërëm na Serigne Touba yàlla moom ma ko xamal. diiney wedde ka saxal du diiney weddi du diiney weddi du diiney saxal diine ji na ko yàlla indee noonu rek lañ koy bàyyi amul luñ fi weddi amul luñ fi saxal yàllaa ko fi indi ba pare ba ne al yawma akmaltu lakum diinakum kon amul luñ fiy weddee ka saxal luñ foofu beneen bi mooy euh, waxu ñàkk teggin moom dafa sax ci seen làmmiñ diine ji nag bu fekkente ne da ngay waxtaan ci xam-xam. di wedde ka saxal balaa ngay saxal da ngay am xam-xam nga jàng tuuti soo jàngut amoo looy weddi amoo looy saxal ndax xamu. <laughs> saa du wax de waaw du la wax du yow ragalel yàlla nga naan yàlla moom wax ne gërëm na diw sàngam subhaanallahil aziim cheikh bi tey nga ragal yalla no yeen billaahi yeen yeen da ngeen ma jaaxal déggal mu na yalla mu ko wax euh waaw soxna si ñing lay ziar bu rewe rewe itam kaddu mu ngi deglo audio mu audio bam jeex na xamaguma lo mujjee waaye li ma ci deg gum mu rafen ni rek mo xam-xam waxtaan ci ñeek ak ya, teranga ba ku nekk kenn convaincre moromam ci deug euh waxuma convaincre nak ay nax li nga wax ne weeru koor yàlla day tëj safara tëjut safara bunt yi nit di di jaar ba mën a seytaane di ko fa jaarale ba dugal ko safara bunt yooyu tëj waaye du safara lañuy ñuy tëj safara moom bu fekkoon ne loolu la kon kenn du mën a def bàkkaar ci weeru koor te nit ñaa ngi koy def am nañu koy def kon loolu dafa jar a bàyyi mais grand man foogoon naa ne yow xam-xam ngay waxee quoi mais xool naa bi ci biir waaw xam-xam yow ndekente yow nga ne maanaam kan moo liggéeyal eh, kii bi ñu tuddati islam mi nga ne sëñ Bamba sëñ Bamba ñoo am ñetti jabar yu bokk ndey ak loolu liggéeyal islam la loolu liggéeyal islam la ah loolu liggéeyal islam la wax ma rek ndax loolu liggéeyal islam la fii ngeen nekkoon di fen naanaan ay mosuta ànd ak tubaab bi nee na bañ tubaab eh, rek doy na doy na nekk jullit te mu te te seen juma ji kat ki ko desee ne ab tubaab la su fekkee nga ne léegi dem laajte pour tabax juma nga ne loolu moom mooy fen muy dox bon kañ loolu soo ñëwee ci seen sëriñ yi foofu la ëppee parce que fi ngeen di taxaw gis nit kuy waaj a dee ñàkk ñàkk amul ñaar dërëm du yore benn ñaar fukk kese ñaar fukk kese ngeen ñëw laaj ko ko addiya ngeen ne ko dañu koy defaree juma yéen rek lañ mës a gis ku jël benn sorol ne 4 milliards benn sorol sorolu 4 milliards waaw benn soro ah, te te soma indi indilee man 3 millions ma la soro bu dak seen soro yi ngeen am ngeen di fen nanan fen muy dox kañ yéen dak dàq saa hmm? fen muy dox kañ so soo so soo so de jurbel, région Kaolack région de Thiès fen muy dox kañ la fen muy dox di laaj addiya muy dox ngeen di fen dana na ngeen di financer juma 4 milliards fen fen fen fen fen wa cheikh bi yow ñàkk tëj sawara lan la wundu ci nit di di def bakar ak ñàkk def bàkkaar nga naan bu fekkoon tëjuñu safara kon nit ñi duñ def bàkkaar nit ñaa ngi def bàkkaar kon buñ tëjoon safara nit ñi duñ def ah sawara buñ ko tëjee kon nit ñi duñ def waaw salaamaaleykum wa rahmatulah mbokk mi ñu ngi lay ziar di exemple bi nga joxe ci ñoom Seydina Omar ak Seydina Ababacar ak Seydina Ousmane ñoom radiyallahu anhum nga joxe ak exemple sa bi ngay tudd bokkuñu exemple de leen a tëkkale ndax ñee comme yonente bi lim na ay fukki toll ci fukki saxaaba yoo xam si ñoom dèjà ña nga te deewaguñu ba pare xamle ko wax ko ba pare yonent bi wax ci làmmiñu boppam moom yonent bi la moom mooy yonent bi bu nee gërëm naa diw wala diw dey reconnaître nangam nangam nangam mu yonent bi wax wala yàlla xamal ko yonent bi ni ko diw ak diw diw nangam ah foofu mën nañoo xam mais pourquoi ngay jël exemple boobu noonu di ko tëkkale ak sëriñ bi ni yow <coughs> sëriñ bi ngay wax nii <coughs> fan la ko yàlla tuddee ci alquran fan la ko yonent bi tuddee ci xadis yi fan wax ñu fan rek la ñu yonent bi wax ni diw yàlla gërëm na ko ma nga àjjana wax ñu ko indi ñu indil ñu xadis boobu fu ko yàlla boole ci fukki saxaaba yi nga xam si ni tudd na seen tur àjjana indil ñu ko mbokk mi exemple yi ngay boole yow dafa mel ni xale ngay wax de yàlla de moo wax ne radiyallahu anhu wa radu anhu zalika liman a rabbah yàllaa ko wax gis nga yàlla day gërëm ab jaam yàlla dem na sax bay sant ay jaamam dem na dem na ba ne ayuba de de ëskay sama jaam ba ayuba kooku delluwaakoon la ci boromam yàlla waxit ne nit ci boppam mën naa sax sant ab moromu nitam yéen da ngeen koo dàqoon man laa yaskuri naasa laa yaskuri laa ngeen dem ba dàq ne nit ngeen ne du sant moromam nitam ngeen taxawaat ne yàlla du gërëm ab jaamam yéen kon yéen yéen lan la yàlla daal moom moom moom diine ji moom mbindee fi du gërëm kenn wala bu gërëmee kenn du ko xam kon yàlla incapable di te yow nga mën a gërëm sa doom gërëm sa mindaan gërëm nit ne yàlla yéen daal da ngeen a bëgg lu nekk ngeen defal ko seen bopp ne yéen mën ngeen ko yàlla rek ko mënut yéen moom xam naa ne doy na waar waaw ana nan ngay tëkkalee ki nga xam si ni yonent bi moo ko wax ci aw làmmiñu boppam yonent bi sallallahu alayhi wa tudd ni diw ma nga àjjana diw ak diw ak diw ah ña nga àjjana dem nañ àjjana te deewaguñ sax yow nan ngay jële exemple boobu di ko tëkkale ak koo xam si ni turoom ñëwul ci alquran turam ñëwul ci hadis fekkewul te ak ak yonent bi jamono bal sax est-ce que xam na ko ah, sa sa sa waa ji sama sëriñ yow itam ah, waxee xale ngay wax de xoolal baax li ngay xooy. waxuma ne Serigne Touba moo liggéey islam bi de ndax dafa ñëw fekk fi islam bi waaye Sénégal fii bi fi islam di jar bakkan kenn rek a wuyu woon muy Cheikh na Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul keneen koo ci xamoon waxal kan la. loolu laa wax samay wax nag laaju déformé ba ñu ma ko nettali samay wax waaye wax ko na ma ko waxee rek aleykum salaam wa rahmatullah wa barakaatu sister macha allah wallahi li nga wax yàlla bu ne yàlla mooy fayal boppam koor yàlla ne day fay boppam koor gi est-ce que saa yu ñu wooree ba ñu ndogu yàlla day wàcc fay ñu fan lañu yàlla di fay di yowmal qiyaama yàlla lu mu wax da koy def nee ne koor moo koy fayal boppam waaye wax ñu de après ndogu bu nekk dékk leen seen loxo ma fay leen ne nit ñi nañu xoolaat du ñu def macha allah yéen de ngeen a jàng quran yéen soxna macha allah man jànguma quran di mais dama doon nelaw rek yeewu léegi di déglu ñi di wax xaala la xaarasulaay li ñuy wax ni mu woyee fee ak nu mu leere ñi nga xam ne nag moom dañoo jël diine gi moo ñaale ko seen imaam yi seen sëriñ li ñuy wax suba ba jant soog waxe bakkan rek la ak bëgg téye nit ñi otage kese nit ki nga xam ne bu mu dee ñu koy suul dañ ko ne yàlla sa jaama ngi nii ñun doon nañ ko gis muy julit woor waaye nag yow yaa xam nga ëlbati gannaaw bu ñu ko suulee ay ati at yow fekkee woo nga ne yàlla gërëm na ko yàlla fay na ko loolu lañu dañoo dañoo napp nit ñi depuis ci début bi ci départ bi buñ la nee kenn du kenn du diw kenn du diw léegi dañuy paralyser le xelu nit ñi dañuy wax nit ñi kenn mënul jàng ba yegg ci diw donc ay doomam waxaale na wax noppi te fekk ñoom seen njàng demewul noonu ñooñu bu ñu delluwaatoon tey bu ñu delluwaatoon tey ah bu ñu tasee ñi fi ne tey jii ñoom ñëpp dañuy jëli àlliwa dem jàngaat ñoom ñëpp nag ñi ñuy wax magu Sénégal magu Sénégal yi ñoom ñëpp laa wax A bu ñu dellu saatoon tey jii gis xale yi fi nekk di dund alxuraan ak sunna ñoom ñëpp dinañ jënd àlliwa toog jàngaat parce que njàng bi ñuy wax njàng njàng yu xóot amu fi woon nag de dañu doon jàng a ah, euh, nañ mokkal et puis mokkal alxuraan te ñu bari ci ahli tariix yi dañuy mokkal alxuraan mais comprendre luñ ko dañ koy réciter kër ko moo tax mënuñu comprendre alxuraan dara xamuñu dara ci alxuraan. waaw yow waaw xëy na su liggéey baaxut am na ñoo xam yow xanaa xam am na ñoo xam ne boo leen joxee deux millions ñu la étage liggéey baadut baax yow da mën a liggéey yow loo xam ci sooroor. yow 4 millions yooyu nga wax ne bu ñu la ko joxee nga dafa soroon mooy seen jumaa yi seen jumaa yooyu 2 millions moo koy tabax wala 1 million 500 yéen yàlla moom joxu leen ko benn cër yéenewu leen ko sax colin gu jot tubéy ju jot sax yéenewu yéen yéen yéenewu leen ko yàlla yéen nu ngeen koy joxee kon diine ju jot. salaamaaleykum wa rahmatulah. Cheikh bi ni ngi lay ziare. dem de sun guru sun wa dekk sun boy lool la len fa lay ma gis pay jël 100000 dem di ko dugal ci kiyu touba bi and jëm touba te yow ñun fi dëkk hôpital ba sax amunu ko amunu tali hmm? tuma moom ñu koy doog noonu sax ba pare ngay di borom dëkkam la ak jumaa yoo xamante di ay milliards lañ ciy def nga xam ne maam ay néew gi doole ñooy ñooy jël kii di leen tabaxal seen yooyu sooy laaya ji nga jàng nii tekkil laaya ji laaya ji nga jàng nii tekki ko voilà ñu xam ñu xam <laughs> ñu xam euh, gërëm googu fal la ci ban buntu la nekk laaya ji nga jàng nii tekkil laaya ji bu ne fii di telli telli dem rek si Moustapha loolu laa la wax ma la yow loolu nga wax ne ba fi lislaam xaw ma di jarum bakkan seen seen sëñ boobu rek moo ci sëñ Bamba moo ci moo ci jógoon loolu laa la xam ne loolu du dëgg loolu laa wax du dëgg yow sa sëriñ bi moom jóg na pour l'islam que ñu téye ko yóbbu ko ba xaw ma booy yóbbu ko ba maa yombe dóor fa ko dóor yu dóor fa dóor yoo xam ne nii ba tey ba tey ba tey moom mooy wax ji ba mu ñib si saa am ñu naan lu mom amna ñu naan mom la ba tay amna ñu indi ci histoire que ne ki indi woon ben muy dindi Yo, kalam ndax mom la wala du hein yoy yeb ngeen taxaw fi ni sa way gis na buñu wax lo way <laughs> wa mbok ma ngi lay ziar bu baax wa ku tej buntu lay jaar yobbu safara kay tej na safara rek manam non la la ko meuna waxe rek xamna li meuna wax de buntu yi indi dugg safara mu tëj buntu yooyu daanaka tëj na safara rek ndax day tënk iblis te xam ku ne xam nga ni iblis yoonu safara rek la lay jëmee ndax safaraay kër kon du bëgg ku dem àjjana ba ko bu sañu société mi yépp rek safara day fees del ndax ba ko bàyyee ba ko yàlla bàyyee mu demal boppam dana ko sa jaxannami bi danaa ko feesal mu ne ko ba mu des ñu ma sobal sam bopp kon donc ko kay la wax la yàlla ki tëj yoonu safara tey jii ku tëj frontière u Gambie di nga dugg Gambie jaar ba dugg Gambie di dugg Gambie noonu rek la li ma la wax kay xam naa ko de ma ne ko li ma wax xam naa ko de waaw yàlla du tënk seytaane weeru ko du tënk seytaane waa seytaane lu ko tax a jóg <laughs> servia bu baax salaamaaleykum daaju bi daa soxal sunna ñu di la ñaanal jàmm sa waay yow mii xuma tijaan sa wala xuma tey naa ragal yàlla ci li ngay wax <laughs> day mel ne sànq comédie ngay def nga dañ ko yóbbu duma ko dumay métti xam nga nit nag euh, bu fekkee da nga dund alxuraan ak sunna da wax dëgg te tax te bañ a amal gàmm maa ngi siyaare gars yëpp ñoom seen jagaab eh, di kontaan ci yow ah kii kay <laughs> boo ko dégloo ci tekk ak tey li muy wax ah xamu de li wax xamu ko de. waaw ah, li muy wax xamu ko de maa ngi bu baax a baax. waaw euh, sëriñ bi maa ngi lay bu wér weer weer xanaa di la corriger rek euh, corriger leen moom yàgg nañ ci ba su seen ñi jàjji leen jubbanti leen waaye da ngeen a të yonent bi amul kenn ku mu wax ne mu nga ca àjjana ja àjjana tijjeeguñ ko safara tijjeeguñ ko kenn demagu ca buñ ko tijjee yonent bi njëkk a dugg. ñooñu ñooñu ñooy al ashara al mubashiruna bil janna bashir nag mooy bégal waaye du dañ leen fa dugal dañ leen a bégal bégalee ne leen di ngeen dem àjjana waaye yemul ci loolu de am na saxaba bu taxaw bi yonent bi limee ba pare daf ne ko ud'u llaha an yakuna minhum yonent bi ne ko anta minhum ñaanal ma yow yonent bi ma bokk ci ñooña fukk yooyu ne ko ca nga bokk ndax kooku bégalee wu ko àjjana waaye taxul ñu ne àjjana dugg nañ fa de ñi nga ca àjjana te deewaguñ loolu mënta ne euh, saxaba yooyu waxuñ ne dañ leen a tëkkale ak ñi waaye xanaa xamoon nit ñi bari na fi ñoo xam ne jaamu nañ yàlla lu saxaba jaamuwut yàlla xam naa ne léegi te ngeen tëjati seen nopp yi mais jaamu yàlla moo du tëj yow mi soo góorgóorloo raw leen ci ci jaamu yàlla mais du tax nag nga leen am na ci ñoo xam ne doon nañ seenu saxaba dañoo tuub amuñ ci sax weer génn àddina kooku te bo mënoo fe jaamu ya lo xam ne jaamu ko fi won soo ko guddu fa fan itam mënoo fe jaamu yàlla lo xam ne jaamu ko fi won nga ne iblis limi bon bon lim jaamu ya nga yaakaar ne sax yonent bi jaamu na ko da ngi ni font. assalamu alaykum wa rahmatullah wa mbok mi nu ngi lay nuyu bax de di euh, ndaw ci dafa la laaj ben question bu am solo waaw sa waji ngay wax waji ngay wax ngor si fan la yalla waxe ni nak waaw budé ci texte la. wala na nga ko gis si téere alxuraan bi waaw wala si xadis nga wax ko waaw question bi daal yaa ngi koy wërëwëral moom ngóor sii daal moo waxal fan lañ ko gërëmee. pourtant nag saa waay euh, xam nga jumaa yi yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom jumaam xam naa soo calculer motul deux millions moom benn mooy bi mu fi bàyyi woon euh, développement wu réew bi mooy dem ba tey euh, am tey. soko doon calcul di ko estimer lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp lépp du romb 10 milliards jumaa wu masjidil haram yéen nag seen benn jumaa ngeen ne sorol bi rek 4 milliards la ndawaay fen man man loolu moo si gën a jaaxal benn sorol 4 milliards xanaa kooku sorol boobu moom xanaa ah, jama la hmm? xanaa loolu jama la hmm? loolu doyul tamit nga ne ñun dañoo dañoo iñaane yàlla ba duñ sol ba duñ sol maanaam lu jot Euh, dama lay limal seen kilifa yi nekk ci réew mi mooy sëñ ba sëñ ba mosuta sol lu jot lu mu sol yëpp du daan du daan du yegg si suuf alaaji Malick la même chose ba la même chose bañ na ko ba ay caaya la daan sol ay caaya euh, Cheikh Ibrahim Niass mosul sol lu jot te ñoom ñëpp dañoo bàyyi seen i sikkin donc nooy def ak ñoom xanaa ñoo tamit dañoo iñaane yàlla wala si sa théorie laa demee ba léegi de. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah ka nga xam ne moom moo bàyyi xel ne jumaa du du du du ay millions yooyu de jumaa moom lan fay def moo ci ëpp solo jumaa yu rafet yeeg rafet waaw jumaa yi bu dee un million sax wala muy trente mille sax la fay jógee ci xam-xam moo kii jumaa yu rëy yooyu fuuf waaw la fay jógee ci xam-xam ak diini ak julli gu sell gan fay def ak euh, alxuraan ju neex gan fay jàng moo gën fuuf tabax ponkalum jumaa joo xam ne yow ñi ñi nga yor sax xaaj bi duñ julli du war di tijji jumaa di tëgg ka fecc loolu moom yéen dong ko fi defagul. barki démb xale bu góor bi doon wax moom bu bu ñu suulee eh, kéem bu ñu suulee taalibeem ñetti fan dina ñëw dimbali la te taalibe yi nekk foofu na xool seen dàll yi am na ñoo xam ne seen dàll yi dañoo jeex am na ñoo xam ne lu ñu joxe dépense ëllëg amuñu ko. ku am paaw bu toll noonu yow mal xiyaam wala di dem di fekki jaam ni ci ci biir bàmmeel xanaa war nga leen génne ci situation bi ci àddina événement yi amoon keroog nit ñi sonn ba di daj yi magasin di lekk mais nit ñi dañ leen di fenal ñu ñu ñuy gëm ñi dañuy tëdd ci maayi nen ñi di fen nit ñi di gëm yàlla nag moo xam lan la ñuy def ba ñu ñooñu ndeysaan bu ñu bu ñu leen wooyee ñu wuyu si te bu ñu wax ñuy dëgg xoolal ki yéen woon ginaar ñii ku leen gis ni tarixa yëpp laa la tarixa yi ñuy def seytaane la ñuy liggéeyal yi ci Sénégal ak yi ci àddina bi yëpp la ñuy liggéeyal parce que yeneen bi waxoon na leen tey leen ci yoon bu bu tàll bi ñeneen ñiy woote ñaar ñaar ci ci ci dañuy woote di jëmale ci seytaan ñi fi nekkal tarixa yëpp ay taalibe seytaan loolu mën maa ko wax da ba Z dañuy woote di jëmale nit ñi seytaan lan mooy lan mooy firnde bi xoolal ki yenu ginaar tey kii nekkul ak sago lii fan nga koy wone ci àddina ñu ne la lii diine islam la te bëgg naa nga tontu ma dayoo yaa ngi dégg kii di wax bu dina fekk taalib am ci biir bàmmeel bëgg naa nga wax ci loolu yeneen bi woo foo Faatimata bint yaa Rasulullah nee ko goreel sa bopp ci safara lu ma la dara yow koo xam ne kii fàq maan la ku ko xool sax tubayam bi sax setul ah kooku bu la nee dinaa la fekk ñetti fan ci bàmmeel gis ne bu leen fonto nit ñi li fii nit ñi diw def yëpp tuuri doon yi di jëmale ko ci islam seen sëriñ ñu ko indi tabax booy def fonda fondation bi fondation tabax bi fondation 1000 étages la def bàyyi ko fi lii la moo moom moo def lii. te lii nag da koy layoo ci kanamu yàlla de moom dafa am responsabilité yàlla ne la yow boo amee alal ñi am alal keroog ñooy gën a mujj ñooy mujjee dugg ndax di nga lijjanti sa alal bi foo ko amee ak foo ko def. yow nga xeeb alal waxuma la alalu yoo xam ne alal yu yu yu yu yu yu tilim lañ lay jox nga boole ko ay taalibe yu tilim yu dul jaamu yàlla nga boole ko di leen tere jaamu yàlla ñu yàlla la moom responsabilité bi mu am ci kanamu yàlla moom xam naa ne moom jour bu ñu koy jugé na fekk ñun ñu dugg aljana ba pare parce que moom dina fa yàgg de li mu yore lu mu teg lu mu teg ci diine gi lu mu li moom moom moom yal nañu yàlla ñun yóbbu aljana ba pare mu toog lijjanti ko borom bi subhaanahu wa audio bi ngeen ma yónnee wala nii de waajee moom mënoon ngeen ma yónnee keneen ku mooy kii kii rek laa xam kii wallahi liggéeyalut diine liggéeyalut yàlla boppam poosam kese te nag billaahi wallahi tàllaahi ak ci xam lu ma wér numéro maa ngi ko yore nii bu neexee ma dugal bi nga xam ne xam naa li may wax waaw gis nit booy wax dara day fekk nga gëm ko gëm kii ku ko jàngal jàngal na ma fu mu jaar jaar naa ko kii xam naa ko bu baax waaw kon man ay audio bu ma ko kenn dugalal man du ma ko déglu. sëñ Xaadim ah bañ ko jëlee di koy sànni ci ruq boobu mu doon wàcc te tànk yi daal di wàccoon ci pont yi deret bi génn mu naan maa ngi sedde ne sama deret génn na te fi sabilillah loolu duma wala loolu lan la hmm? ak yeneen ak yeneen bu la ñu tax bu dañu tax wax léegi-léegi maa ngi déglu gànna pustoo mooy gànna fenkat mu naan xaw ma <laughs> xaw ma gouverneur waxee dafa jël loxom bi dugal ko ci diggante casque bi ak bopp bi naanaan ko kesebtu kesebtu maanaam fenkat bi fenkat bi sëriñ <laughs> bi su amoon boobu xanaa bañ ko wooyee pour mu waaye waaye war a wuyu ji bonoon du dem mais lan moo tax muy dem parce que ragal gouverneur moo tax taxoon mu dem bari histoire yi ngeen ni modifier mel ni nit ñi amuñu xel nit ñi ay xel la ñuy doxee di xalaat ñun yoruñu xelu xelu tarixa man ñun xelu nit lañ yore waaw. waaw loolu waa dëkk ba la parce que yow mii yow naka ngay bokkee ca dëkk ba noccade ko jéemoo dara jéemoo faa taxawal dara. yow xanaa mënoo bay nga def ab tool àll boobu yëpp boo demee ci borom dëkk ba nga ñaan ko ci dëkk ba nga dëkk dana la jox àll boobu yëpp nga bay ko soo ko bayee ñaari at ñetti at ñeenti at ñi jàppale la juróomi at danga am loo tabaxee hôpital ak juma sax waaye di taxaw la nit ñey def yow defo ba pare nit ñey def yow defo fi dara naan amuñ hôpital te yow jéemoo ci hôpital pour mu am yow loo fa def balaa ngay wax li nit ñi def da ngay wax li nga def yow. waaw ah, Tidiane maa ngi lay ziare man li nga wax laa la corrigé de bu dee alquran ak sunna ngay dund nit da ngay wax lu am nga dañ ko yóbbu foofu duma loolu loolu laa dégg sa biir yi wax de xam naa nag ñaawal waa ji ak bëgg lu ko naqari moo la tax a jub loolu kese la de wax loo xamante ni si du dëgg waaw nag waaw alxuraan sunu ci nekkee sëñ bi ma moytu lii waaw waaw seex bi li ngay wax nii du waxi dara mbokk mi li mu wax foofu leer nañ la def ah, ah, yor naa numéro xaa yaa naa numéro dara waxoo waaw ah, ay xam naa ko lii wax gëm ko Eh, da ngaa dugg xolam ba ne li mu gëm ko hmm? an li mu wax xam ngeen ne leen rek de Umar Sall lu tax mu mooy da leen di woon seen ñàkk xam-xamu kilifa yi ngeen yore maanaam kilifa yi ngeen yaakaar na ñoom ñooy kilifa yi am xam-xam xam leneen leneen moom da leen woon seen ñàkk xam-xam ak seen ñàkkum njàng waaw da koy waxal ko ndeysaan da leen koy ba leer nañ wallaahi. non xam nga <laughs> yaay booy maa ngi lay nuyu baax di la xam nga bëgg a taxaw fii naan sama sama sama sëriñ yàlla gërëm na ko bëgg di ko tegtaloo ci yoo xamante ne wax dëgg yàlla non ñii kay <laughs> yaay booy ñu ngi noonu rek wallaahi ñu ngi noonu rek te bu waxee ñu naa la di corriger waate te nekk ci ay njuumte. ngërëm googu ci buntu jaamu yàlla la ne. newut fenn ci buntu jaamu yàlla la ne man da na a dëgër fit yéen ak ni ngeen dëgëree fit yow koo xam ne musoo ko bett muy fo musoo ko xamee caaxaan fekkee woo sax jamonoom taxaw di ko critiquer ñeme yàlla weesuwut loolu. sawaay li ngay wax ni yëpp waxuma ko aaya boobu laa lay wax tekkil aaya Tekil aaya ji bu fekkee bu fekkee yow da nga koo bëgg a sukkandikoo ci gërëm gi nga wax ne maanaam sa waay ji nga topp maanaam yàlla da koo gërëm bu fekkee foofu nga ko bëgg a dugal léegi tekkil aaya ji ñu ñu dégg ko man loolu laa lay laaj de li nga wax ni yëpp laajuma la ko. xaadim yow loolu la leer ne du ma wuñ fa loolu ci leer da ngaa fekkee tu da nga am histoire ñu am histoire rek yow loolu la leer ne du ma wuñ ko foo histoire ne du ma wuñ ko yow mën a yow ñeem ci histoire bi di dangaa jàng ma jàng ko rek waaw danga am foo ko jàngee ne gëm ne dumuñ ko man am fu ma jàngee ne gëm ne dañ koo duma comme waa jooju ñu réer ba bañangara bañ ko fa foofu rey ko fa mu fa yàllaaw ñëw ne dafa réer dañu koy gëmloo yooyu yëpp mu ngi fi de man miskin abdallah la tudd ay tiijaan ak mijaay da ko ay bay tool sëñ bi ak nee naa leen nag lii li fii mi ngi fi du orange ay bay tool sëñ bi bay di sëñ bi ñaata dayre ñoo fay génn may li nii ñaata dayre ñoo fiy génn ah ñu koy yit sëñ bi ñaata dayre ñoo fay génn ñaar ñu koy yit sëñ bi ay million ana bi jot te sëñ si amulu fi benn benn njariñ amulu nu ko fi ah, suñ sëriñ si ci moom ñoo yàq réew mi benn njariñ amul ko fi sëriñ bi gisoo li may waxatee gi nii yéen daal yéen a xumb rek yow yéen yéen yéen billaay yéen cinéma ngeen yéen aay yéen daal yéen moom su ma leen amutoon créé leen yéen cinéma dëgg-dëgg ngeen nga ne nag dem dóor ko foofu dóor yi metti ba ñëwee ba muy ñëw di dóor kaalam xamuñ moom la du moom sëñ bi xanaa xamul balaa muy def dafa yore kaalam sëñ bi kenn dóoru ko sëñ bi feebarut xam nga ñaataat la dund <laughs> loolu ko gudd fan du ko dund ndax sa baay dund na ko wala sa sëriñ wala kenn ko ko dund sëriñ bi lim dund dafa dund de dund na at yu bëri bu bu fekkoon ne gàtt na fan ne dañ ko dóor wala dañ ko posone wala dañ ko sëriñ bi dafa dem ñëw en bonne santé régler lim régler taalibe mi raw ñëpp nag doomam yi gën ñëpp sëtam yi gën ñëpp taalibe mi gën taalibe yëpp gëm gën ñëpp ñi topp ci moom day ñoo gën ñëpp nag ñu dul ñoom xanaa loolu moom leer na. waaw si xaarib li wax ne am na lu muy moom bu dee alxuraan ak sunna ngay dund di wax dëgg. loolu day firndeel ne moom alxuraan sunu koy dund dëgg lay wax dëgg yi firndeel yi moom fenn defuñ ko muy dara ci bari ci ñoom liñ lay wax ak li doon dëgg du bokk. saa waay da nga koo rek bañ rek nga ko def ay ay duma nañ ko fa yow wax jooju sax la moo fi ay yóbbu ko foofu duma ko fa yow da lay wone kenn duma ko waaw waxi bañ rek ngay ngay wax te nag. bu fekkee xam nga lan mooy alxuraan ak na nit da ngay moytu dangay moytu tooñ waaw fi ne nii moom yow yaa ngi wax lu dëgg de waaw waaw mu moytu loolu nga dem settantal lan mooy alxuraan ak sunna bàyyi sa waxi caaxaan yi nga wax. général man li ngay wax nii man sama yoon nekku ci loolu de waa jii nii dafa taxaw wax ne dañ ko faa sànni duma ko fa jëlu nga koy jàppale de man sa wax yi sor yooyu ma dugg ma ci man la waa ji li mu wax moom laa ko corrigé. wax démb groupe daa jëlee daa rek. waaw Soufiane Gueye boo ci bokkee lu ne man nga ko def moom waaw banditisme gu ne ñu ne la ci Soufiane Gueye nga bokk waaw waaye boo def ibaadu lool def ñëwee yow xanaa doom ibaadu tëjut safara loolu laay bañ a dégg tëjut safara safara mu nga fam ne dafa tijjeegut bay tëj safara ci boppam dafa tijjeegut bay tëj àjjana tijjeegut bay tëj tijjiwuñ benn tëjuñ benn gis nga yëpp lañ tëj kon tijjiwuñ benn kon buñ ne bunt ya ñuy jaar ya iblis di jaar nit ba ci ñaar yi dañ cee raw muy lekk naan sey muy ñett yooyu lekk naan ak sëy yooyu nag doo ko def ci bëccëgu koor am na ñoo xam ne ñi ngi def ci guddi koor lu gën a bon am na ñoo xam ne wooru ñi ngi def koor lu leen ko def loo saytaane bokk ci nga yaakaar dañ koo tënk saytaane tënkuñ ko de buntu lekk ak naan ak sëy bëccëg foofu lañ saytaane di jaar nit bëccëgu koor ci lañ ko ko ci la ko mënut ndax boo wooree te gëm yàlla doo def loolu yëpp loolu rek la waaye bu la neexee nga ñàkk a woor dem def njaalo ci mbedd mi bëccëgu koor est-ce que doo am bàkkaar waaye bul ko waxati waay. Macky Sall bi mu ñëwee ci ci xalifa bi nee ko da koo diis affaire àddina makki Sall dafa dem ci xalifa bi diis ko affaire addina di moom dafa am paawo am na lépp ñu koy ñaanal toujours mu yàgg fi léegi nag moom bu ko Macky Sall ñaanee affaire àddina. te mu nekk ci àddina mu mën a ñaanalaate lu tax mu koy lu tax mu ne bàyyi naa la ak sëriñ bu mag bi boole naa la ak sëriñ bu mag bi xoolal foofu la ñuy naxee nit man ñëw naa ci yow di la ñaan dërëm dërëm baa ngi ci sa poos loo may boole keneen li ma soxla li ma kisal soxla woon jour boobu ci moom moo ko yor ndax kenn mu ngi àllaaxira mu ne ko bàyyi naa ko naa la ak ak ak sëriñ bi ça veut dire que amuñu dara suñu amoon dara tey jii nii. ci événement yi ñu génn xale yi ñu dóoroon seen parent yi ñu sonal leen ñooñu sëriñ bi dafa jël cinquante million joxe lu tax mënul woon ñaan senegal naat ku mën a fajal nit àllaaxira nañu ñaanal Sénégal naat ñu naanal xale yëpp xëy am am am am xëy su dee dëgg la su dee dëgg la sëriñ boobu lu mu am am na ko kii di wax day fekki euh, sëriñ bi allah day sëriñ fekki taalibeem àllaaxira mu ñaanal ko nañu ñaanal fii jeunes yëpp xi am liggéey àllaaxira nañ bàyyi nañu ba ñu demee ñu dugg safara mais fii nañ régler situation bi jeunes yi nepp yëpp nañ xëy am liggéey yaakaar bi fu Macky Sall amoon bu demee sëriñ bi ñaanal ko Sénégal naag mu bàyyi ko sëriñ bi dem depuis euh, ak kenn xamu moo tax euh, euh, Macky Sall bi mu fa jógee dafa may xale yi ay saretu mbaam dig leen ay ay Jakarta lu tax moom munu leen munul woon xëy rek ñaanal Sénégal ñu am ordure bu kii garab yu rafet ñu am naataange bu rafet ñu xëy xale yëpp am liggéey Sénégal ne tekk liñ fay wax amu fa loolu amu fa ay fen kese la da aan ak baseet fen kese moo tax moo tabax tariixa yi ak def nit ñi jàmm gesi jeex na li Thierno Younous waxoon nag France ak ak ñi fi toogoon naan ay sëriñ la ñu leen di tappal ay ay garaat lii rek la Sénégal nag nit ñi yeewu nañu dootuñu nelaw ba ilaahi yawmi diin ñi ñi di nelaw te duñu yeewu rek mooy ñi nga xam ne dañuy jege sëriñ si ñuy jël café di leen jox ñuy jël ay lekk yi leen jox taalibe bu demoon ba euh, tëdd ci màggal bi gis sëriñ si toog xaaju guddi génn ci biti jël waaye yàllam yi di ko def ci café kuuf ku dul jóge ci milieu yooyu doo doo doo yeewu ku bëgg a yeewu rek da ngay jóge ci ci ci seen milieu yooyu sa tarixa bii boo ko mënee défendre rek nga mën a défendre iblis jeex na tarixe bi yëfi iblis kese la da A Z fan nga nit fan ngay gisee nit dinaan damay kennal yàlla day kennal du kennal yàlla sëriñam lay kennal li metti ci diine gi ci Sénégal number one ci seen tarixe bi la jóge beneen bi ñëw ñoom ñëpp yem sax ñoom ñëpp ay taalibi seytaan la ñoom ñëpp parce que dañoo jàng alxuraan këru ko di gis bind mun a liir mais comprendre ñu dara dara lañu comprendre yàlla ni moo artur nit ñi sooratul Baqara ak Maïda sooratul Baqara surtout suñ ko jàngee ñu xam ne diggante sénégalais yi sëriñ sëriñu la tarixa yi ak seen taalib yi la fa yàlla di wax su ngeen ko xamul moom juum ngeen man yooyu ma génne ci ngeen nekk nekk di sonal nit ñi ci ay soseg yi fen fecc religion boo xam ne fecc kese la ak i ak i fen di sos rek ku la dàq sos ñu yóbbu la ci télé bi ñuy dégg la ñu lay may bu njëkk sax dañuy doon may ay terrain loolu dëgg la woon mais léegi ku fa demit ay dañuy wax dina may nañ la terrain mañ leen la 10 millions ay fen kese la comme ni ñuy fenee ci tarix bi loolu kese la yow nag dama lay ñaanal yàlla ci barki mois de ramadan bi balaa beneen weeru koor yal na la yàlla woon dégg nga topp ci bàyyi leen gis nga ab ab jaali li koy yóbbu safara mooy li fi maamam bàyyi woon ak li seen sëriñ bàyyi woon yow nag maa ngi lay ñaan yàlla yàlla na la yàlla musal yow xam nga kan nga war a ngërëmam utal yàlla gërëm la te nga bàyyi sëriñ boobu bu dee yàlla gërëm na ko moom affaire am la moom kay moom bu ko yàlla gërëmee moom am na chance mais yow bu la yàlla gërëmul foo jëm maa ngi dégg benn sëriñu pulaar euh, Thierno Aliou Thiam nee na taalibe yi ñun suñuy compte banque fees nañ suñuy kër rafet nañ am nañ oto yu bëri nee na taalibe yi dem leen ngeen defaree seen këru papa yi te moo gën ngeen di tiitaroo seen seen seen seen li seen li seen sëriñ am nee na seen sëriñ bés bu génnee àdduna nee na ay doomam ñooy donn lu mu am yow doo ko donn donc loolu alerte bu am importance la yow maa ngi lay lu tax ma traduire la loolu pour nga comprendre bu yàlla gërëmee sa sëriñ te yàlla gërëmu la amulu la njëriñ bu yàlla gërëmee say parents te gërëmu la amulu la njëriñ fexeel yàlla gërëm la gërëm say waajur gërëm sa sëriñ sonal ngeen ci neen sonal ngeen neen ñi ci seen puy paaj yooyu Sénégal dara taxu ko lëndam lu dul loolu sa sëriñ si nag bu dee mun nañ xoolal sa xalifa bi Macky Sall ñëw na fi di ko na xaaral dafa gudd. waa dama lay tontu yow tamit te di la laaj yow fan lay yonent bi wax ne foofu noonu fukki yim garanti àjjana fu ko yàlla wax yow fan la ko yàlla waxee ak yow luy sa dalil sax ndax yonent bee ko waxam déet loolu laa lay laajaat yow. yéen si ngeen taxawee ngeen ne yéen murit yi yéen a gën tijaan yi su ngeen taxawee ngeen naan da ngeen a juboo te de yaa ko wax ni say wax nee na taalibe bamba yi ñoo gën te taalibe yëpp li dañuy waxati su ngeen toogee di jaay la naa fekk naa na da ngeen a ànd su seen xol yi bonee ngeen wane seen seen wute gi ngeen wute xam nga ñun dañoo dañoo am sens yàlla tuddee ñu al muslim yéen nag comme yéen bëgg leen tudd muslim ngeen bëgg a tudd ay ay murit ak tijaan ak xaadir ak laayaan ak cene ba cene ba yooyu ñu ne yàlla muslim la ñuy tudde moo tax muslim la ñuy tudd quoi tey <laughs> saa doole sëñ bi ñi ko topp ñoo gën ñëpp te sëñ bi jàngee Sénégal. <laughs> asalaamaaleykum wa kii groupe 24 ans ah. maa ngi leen di jaare euh, sëñ bi sëñ bi li ngay tëkkale yow tontoo question yi la ñi la yiñ fii de waaw dañ dang ne. yàlla gërëm na sa sëriñ bi wax nga ne fay na ko ma ne la lum ko fay tontoo ci loolu waaw parce que bu fekkee àddina moom indil naa la aaya alxuraan bi nga xamante ne bu fekkee àddina la wóor moom xamal ne kon sa sëriñ am na problème loolu yàlla moo ko wax bu fekkee gërëm na ko ana fu xadis lañ ci soxla wala aaya alxuraan waaw wala sax ijmaaw boroom xam-xam yi rek waaw boroom xam-xam ndax déppoon nañ sa sëriñ yow sax dañ koo gërëm waaw comme que xam naa mënoo ci indi ay alxuraan léegi indi ci borom xam-xam yi yi nga xamante ne récolter na xam nañ leen ci islaam daan waaw ban maande lañ yor si sa sëriñ waaw wax yu rafet yuñ ci wax borom xam-xam yi nga xamante ne ni xam nañ ko ci xam nañ leen seen taxawaay ci islaam mais li ngay tëkkale ni ay ayuba loolu gis nga ayuba nga wax de yàlla daf ko cité tudd ko saxaaba yi ngay wax radiallahu anhu waradu anhu yàlla saxaaba yi la waxal foofu waxul ak foofu taabi yi waxul ak foofu kenn saxaaba yi la waxal parce que si jamono jooju ay alxuraan boobu ci saxaaba yi la doon wàcc waaw ñoo doon dem di xare di xeex di reyante di def seeni alal hmm, di ñàkk seeni bakan si l'islam pour mu taxaw waaw yàlla ay alxuraan seen ko ne gërëm ñoom tamit gërëm nañ ma waaw bul tëkkale lu bokkut bàyyi leen li ngeen di tëkkale lu bokkut loolu bokkaale la bàyyi leen li ngeen di boole lu bokkut ok asalaamaaleykum wa rahmatulah waa mbokk mi yow daal yeneen bi ngay tëkkaleeg sa waajooju <laughs> loolu tax ngay réer loolu moo tax nga sànku ji moom <laughs> kooku du yeneen kenn yónne ko suñu ñun xëy na si yéen leen ko yónni asalaamaaleykum wa rahmatulah waa Euh, groupe bi maa ngi leen di ziar bu baax di wax sëñ bi sa wax bi moom ànduma ci yow islam ban année nga dugg Sénégal xoolal li ngay wax te ragal yàlla sëñ bi li ngay wax xamoo li ngay wax de xam ban année la islam dugg Sénégal islam onzième siècle la dugg Sénégal mille quarante huit ah ngay taxaw naan ay subhanallah doo ragal yàlla. Euh, Tidiane xam naa ma def la sama vocal bu mujj yow eh, moom eh, fi nga far da nga ko précisé ba mu ba même bu fekkente ne génn nga ci sax moom yow moom ba léegi eh, kii baa nga moo tax sànq am na lu mu la junj te yooyu sax amul solo te yooyu solo maanaam nit moom bu waxee rek feeñ waaw waaw yàlla baax na bu fekkee yaa ngi ci biir alxuraan na sunna dal moom yii da koy moytu te lu ma lay conseillé la rek. loolu du dëgg loolu mbokk mi loolu du benn dëgg. Soros bi quatre milliards buñ ko waxee tamit de bu fekkee ñoo ko wax de dëgg la waaye dama jàpp ne bu nekkut loo sos man de dégguma ko waxuma ne dégg naa ko man de dégguma ko soo ma indilee vidéo buñ ko wax itam mu leer mu ñu ma quatre Soros ma ko joxee ma déglu ko dinaa ko dinaa xam dama cee wax juma yi yonent bi nga ne matut un milliard boo boo ko calculer yooyu yëpp xaw ma dix milliards xaw ma du benn dëgg foofu or yi fa nekk ëpp na ko fuuf te nga ne ba fa yonent bi nekk matul woon deux millions xaw ma dix millions matu ko woon to Touba bi mu fi nekk jumaam ñu matu matu cinq cent mille waaye tey man yow man man lu ma leen di tontoo sax yow yow li nga wax ni waxoo fi dara dara waaw juma bu seerut tey xam génnee xam-xam moo gën juma ju fort génnewul xam-xam waaye jumaa ju for tey génnee xam-xam moo gën jumaa ju foru tey génnee xam-xam loolu nga xamaale ko ci waaw antul eh, ma ko foofu boog ci eh, tëj safaraak tëj safaraak yooyu comme wax dëgg yàlla moom lu ma ci xamul moom duma ko wax ndax du wax li may doyadiloo waaye tontul ma ko ci boobu rek eh, yonent bi am na pouvoiru ràmm yomal xiyaam li ma leen di tontu mooy yonent bi am na loolu yëpp lépp lu nit di am yonent bi mën na ko am safaatul kubra moom rek ko am waaw moom am na loolu pourtant nekk na fi di dund ak ay saxaabam ñi sonn ñi leen di dóor yonent bi xareb Uhud dóor nañ ko gaañ ko ba dugal ko ci pax ba muy wax naan ilayya ilayya ibadallah bay wax naan kayfa yaflahu xawmun faalu hada bi nabiihim lan la ko yàlla wax laysa laka min amrihi shay'un waaw kon nag loolu mu ngi noonu kooku kay yonent boobu moom su fekkee moom moom moom la ñu wax ne mooy mooy mooy ramu nit ñi shafaatul kubra te moom yonent bi moo waxal boppam ne yasfau axyaari min baxdi gannaaw bi ma ramee sama tànneefu xeet dana am ñu ram kon kay comme que ay jullit ñoo fi nekk fii ñi leen di rey di dugg ci biiri juma di leen bombardé di rey ay jullit di nangu seeni ressource ak seeni pétrole te yàlla ànd ak yonent bi yónni woon yonent bi ñin ñi nekk ci diine ji yàlla gërëm yàlla seetaan waxuma laa keneen deneen xool li ngeen wax yéen moom daf ma ni da a amul xel moom xaw ma lan la waaye yéen seen jumaa yi ñan woo jigéen xam-xam yéen seen seen seen dëkk wa bu dee téeméer ni dëkk juróom fukki yi duñ julli ganaan jumaa ju dee téeméer seen jumaa jan mooy génnee xam-xam jumaa joo xam ne ay bàmmee lañ ci biir nit ñi di ko wër di ca ñaan seeni soxla jumaa jooju bu doon mm. génnee xam-xam ay nit daan fa nekk di mm. bokkaale bokkaale gu metti googu sëriñ bi waxoo dëgg eh, wax lu tax waxoo dëgg mooy yonent bi alayhi salaatu wasalaam dem na taayif ñu duma ko ba deret di génn ci omo mi ba nàccal ko nàccal Zeyd ibnu Harisata yonent bi tamit beneen bi ci xare eh, eh, Uhud damm nañ gaañ nañ óomam ba nàccal ko daane ko ci kàmbu damm ba ñu sellam bi ba muy wax naan kayfa yaf yaflamu xawmun faalu haza bi nabihim yonent bi def nañ ko lool ba ba ñuy wax naan ba iblis daw seytaane dugal ci seen xol ragal bañ bañ naan inna muhammadan qad maat yonent bi dee na ba yonent bi naan ilaykum ila ilaya ilaya ibadallah bay wax naan kayfa yaflamu qawmun faalu haza bi nabihim xeet wi xawma nan la ñuy texee ñoom ñi def nii seen yonent lu ko yàlla tontu laysa laka min amrihi shay'un loolu mu ngi ci mu ngi ci alquran demal Ali Imran mu ngi fa <laughs> wala ma fo yónnee la ko léegi foto nga xool kon boo taxawee di ndamoo naan kii dañ ko gaañ pont jam ko mun a génne na deretam aha kay kooku dafa bokkal ak yéen ku gi tuur na deretam tuuru na ngir islaam yéen moom ñaq sax tuuru leen ko ngir islaam sëñ bi yow est yaa ngi waxee yow de keroog ñëw nga fi di woote nga ne booy wax yow bëgg nga di wax ci xam-xam mais yow génn nga xam-xam yow bu fekkee ay xadis yu ñëw wér këng hmm, fukk nit ñi nga xamante ne nii yàlla wax na yeneen tibi na leen bégal ne ñoom fii ci àdduna ay nitu àjjana lañ di dox mu lim leen hmm. yow ngay ñëw di laaj ci loolu fan la ko yàlla wax waaw yàlla waxu ko ci alxuraan mais yàlla xadis moo ci ñëw léegi dangaa ngaa bëgg a weddi xadis wala xadis moo ci ñëw waaw yeneen timb moo ko wax xadis moo ci ñëw seedeel leen ne du ñooñu kese mais ñooñu sax lañ lim mais am na ñeneen ci gennaaw gi ñoo xamante ne du yeneen bi seedeel lañu bëri ajan mais ñooñu si benn jotaay la woon moo tax affaire bi sax demee noonu léegi da ngaa weddi xadis ah, bismillah yéen comme que moom yéen moom lépp loo xamante ne seen sëriñ wax ko ñëwee ngeen taxawee di ko weddil rek. yéen sëñ Touba jël jël ab architecte plan ko pour mu defar plan bi plan bi rek ëpp na cinq cent mille nga naan ñu saa leen xam lu ngay wax waay. fii xol bu bon kay yéen la yéen ñi nga xam ne jaral na leen ngeen rayante toog ba heure une heure treize ngeen topp ci Cheikh Ahmadou Bamba. top di xaste di xas mu di jek tidiane yow lolou ngay wax nan ñoo jubo yow lolou sax naa fi xata nga diko wax mais gëmoo ko sax li nga wax non leena lu ngeen di bañe bon seen serigne bi dañ ko duma nak yow nga ne yonte bi duma nañ ko leen ngeen ban nañ seen serigne dañ ko duma nak lii lañuy waxati gëmul leen sax yonente bi sallallahu alayhi wasallam seen serigne bi ngeen gëna jappé ke sax mo gëna for yonente bi comme ko sañ nga wax ne yonte dañ ko duma léegi ngeen ne seen serigne bi duma wuñ ko dañ koo duma ba mu dañ koo nooy nga naan ma lan islam kañ la dugg Sénégal islam ba mu duggee Sénégal yàgg na xamoo ne suñuy aada yi aada yi murid islam bi mu duggee Sénégal ak période boobu nga xam ne mag ñi jaar nañ fi dafa soreewul nag loolu nga xamul yow yow xam nga kon ba naa la islam dugg Sénégal <laughs> dama yaakaar ne da ngeen a feebar demal nga gëstu ji ngeen gëstu doo a wax ñu toll yéen ñi ñëpp téeméeri ni da nga may sëqatoo di wax te amul li ngeen wax benn amu ci njëriñ ah jàkka yonent bi di alayhi salaatu wasalaam instant bi may wax ak yow ay nit a ngi fa tëdd eh, ak noo ko mën a layee ay nit a ngi fa tëdd de xanaa de yow demoo màkk yow demoo màkk war naa ci yàlla yow demoo màkk loolu xam naa boo demoon màkk doo yow li ngay wax nii ay waxi naxa sa xëndëg rek nga fiy wax yow mii sax mën ngaa ràmm yow mii mën na noo dem ba ëllëg ka nga jàpp ne moo lay ràmm yow nga ràmm ko. voilà yàlla waxul fii kenn ne diw sàngam mii mooy ràmm voilà ñun li nu xam te mu ne te nu jàng ko mooy kii ràmm ëllëg yowmal xiyaam borom bi subhaanahu wa moo koy jox ndigal te ku daan bokkaale yàlla kenn mënu laa ki muy ràmm tamit day fekk mu nekk ku yàlla gërëm waaw léegi nag yow da mën a taxaw fii ne sab sëriñ yàlla da koo gërëm fan la ko fan la ko bind fan la nekk yow nga mën a dem ëllëg yombal xiyaam yow mii nga war a bokk ci ñiy ramm man laa même chose keneen ak keneen laa même chose parce que yàlla junju ko kenn de waxu fi ne diw mii mooy ramm wala diw wala diw dane rek kay ramm ëllëg moom moo koy jox ndigal ka muy ramm tamit aussi mu fekk mu nekk ku yàlla gërëm voilà ay ne fii di wax sa waxi guddi yi sa waay sëñ Moustapha barki yàlla xam nga ne yéen juboowu leen li koy leeral mooy léegi-léegi kii wax ne xaw ma ku dul taalibe bamba taalibe bamba la gën ku dul sëñ bamba sëñ bamba la gën kañ ko xam nga ki wax loolu kañ ko dafa leeral mbiri añu ah, lan saa waay yéen na ngeen di sóob nii rek parce que am ngeen lu leen soxnaal mooy na yoonu yonent bi sallallahu alayhi wasallam da leen di déranger daf leen di déranger moo tax ngeen di booloo mais heure bu heure bu ngeen yëkkatewante ay kàddu fu ngeen nekkee yéenub nen ay kuur jóg moom maa leen ko wax àndum naa fekk dëgg ngeen di ànd saa waay man waxuma ne duma nañ ko waxuma ne duma wuñ kenn man yegguma ci loolu waaye duma yooyu nga wax leeruma waaye duma yi man leer na ma man tuddeewu ma ko sax ay duma yàlla dogalub yàlla rek laa ko tuddee ak tamit preuve épreuve boo xam ne day wane ne yow mii li ngay wax gëm nga ko ahasiba nnaasi an yutruku an yaqulu amanna wa hum laa yaftanun yàlla ko wax dañ leen di pour épreuve dañ leen di day il faut ngeen di épreuve buy wane ne yéen ñi gëm ngeen ah li ngeen nekk dëgg la wala du dëgg loolu la loolu lañ ci jublu waaye du ci taxaw naan duma nañ ko dumawuñ ko loolu du wax